salaamaaleykum mbokki internet Leewtoo TV ginnaaw bu mu leen nuyoo di am contentement gën ak yéen chaque suba ngir indil leen li gën a fës si bopp xibaaru làmb Mbaye Babacar soo ma fayee rek ñu daal di wéyandoog gars yi. jërëjëf nday Mbacke gannaaw ba bàkk ba daanoo maa ngi lay fay bu baax a baax di la ziar di nuyu bu baax a baax Assane Waalo di nuyu équipe bu Leewtoo TV yëpp wante mbokki internet mbokki internet yi ñuy topp ñu ngi leen di ziar di lay ñaanal jaam ak maa ngi nuyu bu baax waa Diourbel. Assane Waalo nuyu naa Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di fay Babacar amaan mbégte jàkkaarloo ko internetu Leewtoo TV yi pour indi leen li gën a fës ci yenn kaay yi. lundi 22 février 2021 journal suñu lamb xëy ci xëtam mu njëkk reprise des compétitions à huis clos le 1er mars les conditions sont-elles réunies. jërëjëf Ndeye Mbacke mu mel ni li ñëpp doon xaar muy li nga xamante ne bii ñu ubbi saison bi euh, amateurs yi ak mbër yi ak ñi nga xamante ne ñooy promoteurs yi mën a gisaat seen bopp ci làmb ji ñu ne way wi léegi daanu na le première mars danañ ubbi saison bi mais journal bi dafa ñëw tey mel nii ku samp laaj mu ne ndax matukaay yi nu war a jël yépp est-ce que jël nañ ko ngir saison bi mën a am incha allah ci wii loolu le premier mars. Mbaye Babacar ni nga ko waxee noonu la euh, reprise des compétitions à huis clos la premier mars les conditions sont-elles réunies question boobu le journal suñu lamb xëy samp nee na ginnaaw bi CNG waxee saison bi le premier er mars lay démarrer est-ce que condition yëpp réunir la réunir na réunir na pour que ñu mën a demaar saison yi nee na euh, saison bi dafa protocole sanitaire bi ba léegi waxtaaneegun ko appui bu état bi digoon euh, promoteur yi également waxtaaneegun ko. loolu daal la suñu làmb jàpp ne est-ce que lii lépp comme mëtagul est-ce que saison bi pare nañ pour démarrer ko. Malick Niang Tapha Tine Papa Sow ces trois ces trois prestigieuses victoires d'Ama Baldé. mu mel ni ñoom ñett ñooñu ku ci nekk am na foo jaar ak sëll bu ndaw bii di Ama Baldé ku ci nekk Ama balde daan na la mais assan li ci gën a mais mooy ku ci nekk ni la Ama balde daane bokkul ak ni mu daanee sa morom dëgg la Mbaye Babacar Ama Baldé mi war a jàkkaarloog Modou Lo ci combat royal boobu journal suñu làmb dafa ñëw xëyaat ci ñetti combat yoo xam ne nii def na ko yoo xam ne nii marqué nan làmb njëkkaat na ci combat moom Malick Niang mi ngi am le premier juin 2014 nee na lii moo doon l'arroseur arrosé Malick Niang dafa diggoon Ama Baldé ay dóor mais finalement moom la Ama Baldé KO dikk na également ci combat mook Tapha Tine bi amee woon le 10 mai nee lii moom moo doon hold up de l'année ñëw na également ci combat bi doxoon ak euh, Papa Sow le 17 février février 2018 nee na Ama Baldé bi moom caw sa xiir la indi woon. caw sa xiir la mujjee andi bii di ñëw lan lay andi. ah ñu ngi koy xaar waaye Modou loo ak ñii est-ce que bokk na loolu moom ma ci jaaxal waaye en tout cas Ama Baldé xam nañ ko ci innovation dina teg également ay ay slogan ñu ngi ko ciy xaar. kon ñu ngi koy xaar ci lu bees tàq incha allah. Mm-hmm. slogan bi indi mooy Ama Baldé yaa yëngal moo yëngal. <laughs> pour les Gambia noonu nga ko waxee noonu la noonu la amee aadama eh, Barrow moom mii nga xamante ne bii moom mooy président de la république bu Gambie gannaaw ba mu dakkalee lépp luy xumbaay ci réew moomee di Gambia journal bi ne loolu dina metti ci promoteurs yi trop wante dina metti tamit ci mbër yi. dëgg la Mbaye Babacar interdiction des manifestation en Gambie coup dur pour les lutteurs et les promoteurs du Sénégal xam nga début temps yi passé promoteurs yi ak lutteurs yëpp dañoo jógee woon fii jëm Sénégal di fa bëre malheureusement pour eux nag Adama Barrow muy président Gambie dafa def benn dogal génne bu interdire manifestation yi fa war a am yépp loolu nag mi ngi war a démarrer le 8 mars loolu tax moo tax suñu làmb ne coup dur pour les promoteurs et lutteurs waaye nag am na ñoo xam ne nii nar nañ ci loru mooy Jamaïcain moom mi nga xam ne prévoir woon na tëgg combat am le 27 ak le 28 bii di ñëw le 28 février mars su ma jumul moom moom dina ci loru moo tax euh, euh, am na keneen également Fallou Ndiaye Fallou Ndiaye moom. Euh, journal bi nee ne il est sauvé de justesse ndax combat bi le la vingt le 27 28 bii la war a am moom dina tëgg ay galawam avant dogal boobu di di di dal. kon Fallou moom dina tëgg làmbam incha allah bu ci yàlla àndee avant le 8 mars. waaw avant le 8 mars. Fallou moom mais moom tamit waxagul dara. jamaïcain il apparemment dafa rapproché datam bi le le mars au lieu de vingt 28 bi nga ko naroon def léegi daf ko jegesil le 7 mars la ko war a tëgg dernier xibaar yu ñu jotoon daal loolu la jot kon kon li ñu for ci weewu bay mooy Jamaïque dafa xëcc ci combat bi ba le 7 mars ba le mars waaw. te kañ nag mooy Bébé Saloum défaite par Reug Reug et Franc Bébé Saloum perd du waaw noonu nga ko waxee noonu la demee Ndeye Mbacke Bébé Saloum gannaaw euh, ba ko Reug Reug daanee wante daan na jatle ci diggante bi ñëw Franc daanaat ko assan ñu jàpp ne Bébé Saloum daal wax dëgg yàlla mbër la ma nga xamante ne bii euh, gisuñu ko gisuñu ko bu baax fan ko doon séntu. dëgg la mbay Babacar Bébé Saloum père du terrain lu tax journal suñu lamb wax na ko nag mooy Bébé Saloum dafa am départ bu baax a baax a baax ñëpp teg ko xaar ko fu sore sori mais malheureusement Bébé Saloum daal am na peine wala am na difficulté di euh, di enchaîner ay victoire ndax euh, victoire bi mu jógee ci euh, victoire u li da ci teg ab défaite boo xam ne nii conte franc la woon loolu mi ngi amee le 8 mars 2020. mu mel ne bu daanee day daanu. voilà moom daal mënul degale ay victoire day daane daanu daane genre yooyu lay teg. moom nag jot na am 16 combats 9 victoire la ci am 7 défaites xam nga bilan boobu xaw na négatif tuuti. 9 combats. 7 victoire 9 victoire 7 défaites. Ah, xaw na bëri tuuti quoi. reprise des combats à huis les acteurs de Kaolack diversement appréciés. waaw jërëjëf Ndeye Mbacke euh, ñi nga xamante ni bii ñooy yëngu ci làmb nekk fële ca Kaolack Ndangaan ñoom andi nañ seen xalaat ak seen gis-gis ci ni nga xamante ne bii noonu la làmb ji war a doxee ci anam bi ñu ko bëgg a doxalee muy huis clos. dëgg la mbay Babacar comme huis kilo moo fi sës euh, suñu làmb nag jox na euh, kàddu ñii nga xam ne ñoom ñooy acteurs Kaolack di yëngatu ci làmb. jox na ci nag euh, kàddu musaa jama euh, fay Moussa Diama fay moom mooy patron Jolof Production moom lu mu xam de nee na dina huis ñu tëgg huis dina difficile trop ci ñoom ndax huis clos moom lan euh, moyen boobu rek lan amoon pour ñu mën a am ay bénéfice ndax public bi billets yi ak parents yi moo doon permettre ñoom ñu am bénéfice te bu ñu ko defee huis clos rek dina métti ci ñoom. huis clos Assane pour mu am dans les régions xam naa ne du yomb. du du yombut. ba léegi journal suñu làmb ci donkin de la lutte sénégalaise dem Gaston Mbengue attendu pour pour la complément des avances. Mm-hmm. ñaari mbër yi nga xamante ne bii Gaston Mbengue moo tëgg seen combat muy Lac de Guiers 2 ak Eumeu Sène ñoom ba léegi ñu ngi taaxeralu di xaar li des ci seen avance ndax ba léegi jotaguñ ko ngir mën a euh, préparer combat boobu war a am le 4 avril. dëgg la Mbaye Babacar combat bi dafa mel ni 4 avril bi léegi soo c'est officiel ndax gis naan fi ay face à face. Euh, loolu daal dafa mel ni euh, combat 4 avril bi taxaw na waaye nag am na lu ci xaw a euh, ñuul tuuti mooy que Eumeu Sène ak Lac de dañu génnoon temps yële ci presse bi di wax la Gaston Mbengue jox leen seen complément avance pour que ñu mën a préparer combat bi looloo tax nag suñu suñu laam mu ñëw xëy ne Gaston Mbengue attendu pour les avances nee na ñaari yi daal ba léegi ñu ngi koy xaar pour mu mottali avance yi mu leen yoreel. ba léegi réunion hebdomadaire du CNG ce altene bu jot bu ñetti waxtu jotee mu mel ni tey incha allah daañu ko amalaat foofu ci seen siège sociale bi euh, fi ñu koy amalee altene bu jot nga xamante ne bii ñoom ñoomi neen ñoo fay nekk waxtaan ci li nga xamante ne bii moom mooy làmb wante waxtaan ci li nga xamante ne bii mooy mooy mooy jëmale làmb kanam. dëgg la mbay Babacar ginnaaw bin euh, CNG dogalee ne premier mars bi lay saison bi di démarrer ñoom nag tey à partir de 15 heures dina def benn réunion boo xam ne nii ci arène nationale lay amee. léegi journal bi nag nee ne réunion bi ñu ngi xaar ay décision yu am importance ci huis clos bi dinañ ci wax dinañ wax ci condition yu di demee ci huis clos yi waaye nar wax également si les mercredis de nga xam ne ni CNG moo fas ne chaque mercredi mu tëgg ay combat mu mel ni danañ fa waxtaane kon Assane ponk yu bari ci làmb ponk yu bari xaar leen ko xam naa suba dinañ ci ñëwaat incha allah incha allah ca S'il s'agit de défendre les intérêts des promoteurs, il les défend sans état d'âme. moom mi nga xamante ne bii ci promoteurs yi la bokk moom daal mi ngi wone ñàkk àndam ci li nga xamante ne bii CNG xëy na rek ne làmb ji incha allah dana ubbi le premier avril te waxtaanu ci ak kenn mi ngi noonu Pape Pape Pape Abdou loolu lay naqaralu moom moom mi lay. dëgg la Mbaye Babacar Pape Abdou Fall douce CNG moom daal li ko naqari mooy le CNG li CNG. joxe annonce ne ne premier mars lay saison bi di démarrer te waxtaanu ci euh, au préalable euh, promoteur yi loolu daal lu nax lu ko naxaree la ba tax moo taxoon mu génn mu ne na sorti euh, sortie CNG bi daal rafetul dara. waroon na avant muy joxe décision boobu. Olof Ndiaye daf ne yenn côté xëddeen dañuy dañuy déggoo avant ñuy jóg. oui <laughs> yëgoo. yàqul dara. <laughs> ca fan dem mu mel ni ñoom ñu ngi ci tiis waa écurie Ndakaaru mataar jaañ moom mi la génn àdduna euh, ñu koy ñaanal bu baax a baax suñu borom yërëm ko te jéggal ko wante di ko jaal euh, waa écurie Ndakaaru yëpp sama kàddu ci turu Leewtoo. dëgg la Mbaye Babacar euh, suñu làmb xëy tàggee ñu ko Matar Diagne mu ne Matar Diagne n'est plus Matar Diagne moom moo nekkoon secrétaire général bu école de Ndakaaru moom nag mi ngi génn àdduna samedi bi passé sa hôpital hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay ñu koy jaaloo comme ni nga ko waxee. mbokkam ak waa ay këri Ndakaaru yëpp. jërëjëf Ndeye Mbacke xanaa gën a ñaax askan bi rek ñu gën a bàyyi xel ci li nga xamante ne bii mooy mesure barrière yi ñuy takk masque yi bu baax di ko takk correctement muy muur gémmiñ gi ak bakkan yi wante tamit ñuy respecter distance yi wante tamit ñu bàyyi xel bu baax a baax ci vaccin bi nga xamante ne bii ñoo na fi ñu fexe askan bi yëpp. yéem ñàkkoo ci li nga xamante ne bii mooy vas vaccin yi parce que loolu mooy mooy avantage wu mooy avantage réew mi ñu bàyyi ci xel bu baax a baax di gërëm équipe Leewtoo yépp di la ñaanal jàmm ak salaam yàlla na yàlla doole jàmm. Mbaye Babacar ni noonu la xam naa ne yaay njëkk ñakku loolu moom xam naa ne si <laughs> ci ngay bokk ci ñu njëkk ñakku ni nga ko waxee noonu la baax na également nit ñi respecté ñàkk yi dem ñakku ji pour que maladie bi jóg fii le plus rapidement possible euh, ci loolu laay dalee nag nuyu waa Linguère remercier leen bu baax a baax a baax nuyu Yacine Fall ñoom Fama ñaa Fama di leen remercier yéen ñëpp di leen jox dig daje suba ak jàmm incha allah. Yacine di leen jaajëfalaat bu baax mbokku internet Leewtoo TV di leen si bëggee di leen jox dig daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV.